sëñ moodu Niang yàlla na ko yàlla yërëm xaaree ko àjjana ndeysaan tey xaadim Niang ndeysaan mii doom ji moo fi taxawal combat bu mag mii combat espoir bu mag diggante Jackson 2 ak Xeeru Ngor arbitre bi nag lu règlement bi wax rek la leen di wax arbitre bi sifflé na combat bi Jackson 2 à gauche Xeeru Ngor à droite ndeysaan ñoom ñaar ñu ngi léemu kan góor gi le grand monteur tey sama consulat moo fi nekk ndeysaan mi daa ndeysaan ñoom ñaar ñi ngi lewtoo xeeri mi ngi dox ci koom xeeri ngor mi ngi dox ci koom mais Jackson 2 dagg lewtoo bi waaw dagg na lewtoo bi Jackson 2 dagg na lewtoo bi ndeysaan diggante Jackson ak xeeru ngor combat bi Jackson si victoire la jóge fii ci arène nationale xeeru ngor moom tamit ci la jóge Mbaye Tine moo ko daan Lat Dior la mujjee daan fii si arène bu école lit Balla Gaye na léegi. Xeeru Ngor moo ngi dox si kawam di ko cadré. Jackson Ngor tey jii samedi incha allah le 5 mai samedi 6 mai le 2023. sëñ Maodo Niamoy ndeysaan. ko yàlla yërëm te xaaree ko ji nag moo taxawal combat bi mi Xaadim ñaa diggante Jackson 2 ak Ngor. Xeeru Ngor dafa bëgg a dafa dafa nduróo dafa bëgg a jeexal combat bi ci une minute Jackson génn na Jackson génn na. mais combat bi nuruwul combat bu nar a jeexee ci une parce que ñaari mbër yëpp lañoo pare physiquement dañoo pare techniquement dañoo pare Xeeru Ngor si défaite la jógee moo tax tey dafa am lu andi bëggul teg ñaari défaite ñaari avertissement pour Jackson ngoor Ngor amagul dara. waa ñoom ñaar ñu ndam li Géejawaay la jëm wala Ngor ci kenam dina leer. ñoom ñaar ñu ngi lewtoo. ndeysaan écurie Mansour Mbaye la bokk Jackson 2 ndeysaan dafa nuroo xeeru Ngor sànni na eh jàppante nañ tasa nañ xeeru Ngor mi ngi dox ci koom génnaat na génnaat na. troisième avertissement génnaat na. mais moom dafa nuroo blessure bi daal moo ko sonal moo tax génnaat na. est-ce que dina am troisième avertissement wala du am. dina ko am nag dafa mel ndax sorte de libéré la def. mais damay ragal lamb ji jeexee décision arbitre. trois avertissement la am. waaw bu ma dee cinq arbitre day mot day tas combat bi jox. xaru jox fit waaw waaw wax nga dëgg ñoom ñaar ñu ngi lewtoo ñoom ñaar ñu ngi lewtoo xeeri ngor mi ngi dox ci kawam. xeeru ngor mi ngi dox ci kawam mais naa mu jeexee décision arbitre. parce que xeeru ngor mayu ko dara moo ngi dox di dóor. jox seen di génn rek. waaw génnaat na saako yi que bii mooy quatrième avertissement. waaw mais damay ragal bu ma dee cinq arbitre arrêté combat bi jox xeeru ngor victoire. waaw bi mooy quatre avertissement waaw bi mooy quatre avertissement Xeeru Ngor Jackson 2 mais dafa ndox moom fiix si kanam de ndam li Ngor la jëm waaw waaw Ngor mu toll da ko dara waaw waaw mi ngi dox ci kawam moo gën a nekk xale ëpp ko doole waaw loolu la wane moo gën a nekk xale moo ëpp doole moo tax abdina piib rek mu sifflé utali ko dox ci kawam du ko may dara mi ngi dox ci kawam Jackson jël na ko xeeru ngoon mi ngay door Jackson jël na ko xeeru ngoon mi ngay dóor ñoom ñaar ñu ngi léewtoo. attention kawo damay ragal damay ragal mu dóor ko mu daanu parce que xeeru ngoon day yor rek fu mu toll nii Jackson jàppante nañ xeeru ngoon Jackson. waaw ñoom ñaar génn nañ diggante Jackson 2 xeeru ngor Jackson 2 jël na ko mais finalement dañu génn saako yi. ndeysaan xam naa ne xeeru ngor dina am avertissement waaw waaw dina am avertissement ndeysaan quatre avertissement contre un arbitre bi sifflé waat na combat bi. waaw xeeru ngor damay ragal mu taxaw gérer lamb ji parce que fu mu toll nii war na mën a téye boppam nag gérer lamb ji par décision arbitre waaye nag mopp doole war na mën a bëre jéem a daan parce que amateur yi loolu lañ gën a soxla fu mu toll nii. ñoom ñaar ñu ngi lewtoo diggante Jackson 2 xeeru ngor Jackson 2 xeeru ngor. xeeru ngor Jackson 2 léegi. ndeysaan. xeeru ngor moo jàkkaarloog ñun Jackson 2 moo ñu wan ñoo ngi léewtoo ba léegi dox ci jëm ci saako yi arbitre moo ngi leen di bëraloo ba léegi dara amagul Xeeru Ngor Jackson 2 ñoo ngi léewtoo fu mu toll nii Xeeru mooy diriger combat bi. Xeeru Ngor parce moo gën a doon xale. waaw moo gën a doon xale. te boo xoolee moo ko sur relance moo ko ëpp doole sax laa mun a wax. mais est kii lu ma doon wax mi Jackson 2. nee na ñii gaañu si accident yi si yoon bi est-ce que loolu pression boobu jàpp ko moo tax tey lool mu gën a wàññeeku ni waa loolu mën na see nag si mentalam parce que bu fekkee da nga ànd ay xale mu am leen arrivé rek loolu boo moytuwul dina see sa mental bu fekkee amoo kii nu muy sàngee baaxul damay ragal ñu doon koy percule mu daanu. dëgg la dëgg la dëgg la mais dina ko gérer. day sànn dina ko gérer Jackson 2 xeeru ngor. Jackson 2 xeeru ngor ba léegi. Xeeru Ngor cokkaas na Xeeru Ngor cokkaas na mi ngi dox ci koom Xeeru Ngor cokkaas na mi ngi dox ci koom e Jackson 2 sori nga Jackson 2 jël na ko mais song bi dafa sori Jackson 2 jël na ko mais song bi dafa sori Baye fal waaw song bi dafa sori fu mu toll nii mais jàppante nañ Xeeru Ngor dëbb na ko col Jackson moo ngi dóor ci suuf mais Jackson bërekat la bu jàppee day bëre combat bi. dina neex xeeru ngoor ak Jackson. waaw Jackson 2 mu ngi koy door pour mu sigi. mais mu jaay ko doole génnee ko saako yi mu am ñaari avertissement. laa ilaaha illallaah xeeru mu ngay door xeeru ngoor mooy dóor wax rek. saako yu fekkiwul kenn saako yu fekkiwul kenn xeeru ngoor mi ngi koy puus pour mu génn pour mu am 5 avertissement Jackson 2 bañ. Jackson bii combat. fu mu tol nii Jackson moo jàpp ñaari ñaari loxo si ngembu. saako yu fekkul kenn yàlla nga ko fekke nag. waaw waaw waaw. xeeru ngor a xeeru ngor ak Jackson. profité ci moment temps rek dina métti ci moom. waaw loolu dafa leer fu mu toll nii. waaw dafa Jackson 2 mi ngi commencé waat revenir ci làmb ji. waaw mu ngi revenir waat ci làmb ji. ndeysaan mu ngi bëri fu mu la dëgg la. xeeru ngor boo xoolee ci xeex bi la gën a concentré wu. mais na bëree. mais dafa ndoroog xeeru ngor daf ko jeexal ci 5 minutes mais Jackson 2 mayu ko loolu. combat bi li muy yàgg muy gën a avantage si Jackson 2. Ah, Jackson du ko may loolu parce que Jackson dafa liggéey si victoire la jógee te Jackson dafa mën a bëre ndaanaan la ndaanoon bërikat la xeeru ngor fu mu toll dafa bëgg làmb ji jeex fu mu toll nii da ko bëgg a mu jeex. te ah, Jackson jàmbaar la dëgg la ñoom ñaar jàppante nañ diggante xeeru ngor Jackson 2. daa ilaaha ngor mu ngay dóor xeeru ngor mu ngay dóor génn saako yi. génn nañ saako yi. Jackson jàmbaar nag génn waat na Xaru Ngor day jël avertissement fu mu toll Jackson moo ngi ci trois avertissement Xaru Ngor benn la amoon mais arbitre da koy waaye joxaat benn avertissement muy ñaar. waaw muy ñaar 3-2. fu mu toll nii 3 la mais ba léegi Xaru Ngor moo dominé gum. waaw arbitre waat na combat bi diggante Jackson 2 Xeeru Ngor. waaw arbitre sifflé waat na ku nekk yaa di déglu sa morom. Xeeru Ngor Jackson 2 fu mu nag. Jackson moo ngi ci temps fort am war na mën a profiter aussi moment bi jeexal combat bi. waaw mi ngi bokkaat parce que mi ngi kàbbar quoi. mi ngi bokkaat ci combat bi. waaw mi ngi bokkaat ci combat bi. ndeysaan première cinq minutes dafa absenté woon ndax sit boobu am. mais yàlla def na mi ngi revenir. mi ngi bokkaat ndeysaan. côté bu ñu ruus dafa mel ne dafa xaw a handicap. waaw maa ça joue ça waaw loolu da jugé mais nag jàmbaar la moo ngi jéem a gérer bi parce que nag ba léegi bàyyiwul moo ngi ci mëninam ba léegi. fu mu toll nii moo ngi bëree combat war na mën a jeexee ci bëri fu tol toll nii. boo xoolee Tuba moo leen fi teewaloon bu Sénégal maa ngi gërëm ñëpp équipe bi yëpp ñoom mangoo ne ñu fay liggéey yëpp maa ngi leen di gërëm ñoom madame Badiane technicien yeex ñoom ñëpp day sànn sama consultant moom moo fi nekk ay waay ak moo am fit loo xam la diggante Jackson 2 xeeru ngor mais Iba dafa mel ni. Xaaru Ngor dafa bëgg jeexal combat yi fu mu toll nii. non mënatu ko première la amoon booy bi yeewu na Jackson 2 yeewu na. waaw Jackson 2 yeewu na te naan jeexee si avertissement sax du ko daan booy bi yeewu na. waaw fi mu toll nii Jackson dafa dëgër boppam taxaw bëre instant bi taxaw dëgër la dëgër boppam la def fu mu toll nii. Ngor ak Jackson 2 ñoo ngi lay too Xaaru Ngor instant bii moom moo moo demee si xeex bi soo xoolee. Mbaye Jackson bërikat la ndaanaan la mu ngi koy day génn wala du génn jàmbaara nanguwul génn ba léegi. Jackson xeeru ngor ba bële mooy xeex damay ragal mu jóoleen moom Jackson xeeru ngor attention attention. oh isaan bi yëpp jug nañu waay. waaw yi ndeysaan amateur yi lii nañu soxla. ndeysaan supporter yi Jackson 2 yaa ngi nii. dafa ndox Jackson 2 am na 5 avertissement. non du ko jox avertissement ah du ko jox avertissement kon xeeru ngar jox na ko avertissement muy cinq avertissement. lamb ji jeex na ndeysaan lu na mooy wax rek ndam li géeje waaye la jëm wala ngor finalement ngor la mujjee ndeysaan. ngor la mujjee. ndeysaan la ko gañee daa waaw. ah Jackson demirite woo jàmbaar nga jàmbaar nga war vraiment demirite woo. ànd nga lii. lii mu yenn lii képp ku mu dal sa combat jeexee nii ma xam ne yow jàmbaar nga. jàmbaar la isaan bi isaan bi yëpp nee nañ teg. jàmbaar la waaw dafa mel ni gars yi nanguwuñ nag. ndeysaan. dafa mel ni ndogal bee dal la kii toogoon si siège bi tamit ndogal dal ko ngay bëreewaalee loolu. waaw billaay jàmbaar la de. mais psychologiquement day feeñ si yow. waaye jàmbaar la ndaanaan la waaw isaan bi dafa siisu nanguwul gën géew gi mais jàmbaar la. jàmbaar moo tax xeeru ngor mu réer ñu jël ndam li kan laa àndal béy di la grand monteur day sànn